benn waxtu ci télévision Futur Média mbokk yi asalaamaaleykum xibaaru digg bëccëg yi bokk na li ci gën a fës mbirum euh, Petro-Tim ak euh, coowub euh, guerre doyen des juges di wéyal déglu gi Aliou Sall moom la ñu war a déglu ci jamono ji moom maire bu waaye ñu koy tudd ci coow lu rëy loolu le moom ak homme d'affaires bi di Franck Timis ca Bambey askan way yeewoo foofu le li ñu bëgg mooy ñu toxal maison d'arrêt de correction bi wala sax ñu tëj ko ci ab diir mooy ndox mu bon mi ballee ca fosse septique yooyu le wutali ji ca ña dëkkee pegg le euh, centre de santé bi ak école primaire bi nekk foofu le moom la euh, yëf yi gën a la jël ba léegi amuñu benn xibaar ci juróom benn nappkat yu caaroy sur mer réer benn semaine ak lu ëpp ba léegi seen i jege ñaale ne état bu Sénégal na ci jël ay matukaay yu euh, yu baax kon wala boog ay matukaay ngir ñu mën leen a wër démb dañ doon amal ab toogaanu ñaxtu foofee ca caaroy sur mer ñu wane lu leen metti tey jëlee ci suba mooy ña yeewoo ca Hann village dañoo xëy di taal ay pëna tey jëlee ca fajar ga ngir ñaawlu yenn ci yoon yi ñëw wala génn ci seen diwaan te nu tëj ko ñu ne ci nu mu gën a gaawee nag nañ leen jox ay passerelle ngir ñuy mën euh, di fa jaar xibaaru biti réew Guinée Bissau démb lañ doon amal seenub élection tànn njiitu réew ginnaaw sii tey jile kenn ci candidat yi di Umaro Sissoco Embaló nee na amul benn candidat bu sañ a taxaw tey jile ni jël na raw gàddu gi ci pàcc bu njëkk bi dinañ ko déglu ci kanam tuuti mbokk yi bu ngeen taaxirloo ne tuuti ñu yaatal ko ginnaaw bañ leen nuyuwaatee ba noppi mbokk yi xibaar yi dañ koy door rek coowal ger uh, bi yeewu fii ci réew mi mu ñeel uh, licence pétrolière yi ci réew mi Aliou Sall moom tey jile la ko doyen des juges convoqué xëyoon na dem sax tey ci suba waaye dañ ko waat ngir benn waxtu maanaam jamono ji moom maire bu uh, waaye dañ koy tuumal ni dafa am koom gu mu jot mu ñeel contrat pétrolier yooyu le ginnaaw Franck Timis di homme d'affaires dañuy dem ca palais de justice fekk ji fa Cheikh Diop Cheikh maa ngi lay nuyu maa ngi fay euh, soxna Naata di nuyu mbokku yi nga xam ne jamono yi euh, ñu ngi ñuy teewlu. ñëw na xëyoon na ñëw ñu ne ko mu ñëwaat tey jile benn waxtu ndax egsi na. waaw euh, Alioune Sall egsi na ginnaaw sax nag waxtu bi nga xam ne rek euh, joxoon nañ ko ko moom moomee sax nag doyen des juges euh, ne woon na ko mu daal di ñëw ci rek bu benn waxtu jotee ndax jëwriñ ji nga xam ne moom dénk wàllu yoon fii ci réew bu Sénégal dafa am ab gisee boo xamante nii rek mu ngi ko doon amal ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di magistrat yi ki nga xam ne moom moo di Alioune Sall di rek ci njiitu bi bi cinquante deux minutes jotee daal nañ teew rek ngir uyu si convocation information bi nga xam ne rek euh, jotoon euh, na ko duggee nag amu fa sax ay simili yu yu yu bari mu génnaat bi mu génnee nag euh, si lañu rek wéccante ak moom si la ñu xamal ni que ne rek bu benn waxtu jote dina dellu si ci fi nga xam ne rek moom moo di ci tribunal bu Ndakaaru ñëw na laataa rek li nga xam ne moom moo di heure bi fi mu nekk nii tam war na janoo ak doyen des juges euh, soxna naata taaxir lu tuuti rek xool ana yan xibaar ñoom ñoo fi euh, ruusande ñu daal di koy jottali askan wi jërëjëf Cheikh Diop nekk en direct euh, palais de justice dinañ ci am yeneen xibaar waaye jàpp leen ni homme d'affaires boobule di Frank Timis ak société ba mu moom di Timis Corporation ñu ne euh, moom tamit euh, société bi dina jàll ci kanamu doyen des juges bu ñu sukkandikoo ci maître El Hadj Diouf waaye xamaguñu akan moo nar a ñëw wala boog ndax dina ñëw fii ci ndakaaru ngir teewal société boobule mu di xibaar bu tukkee ci avocat am fii ci ndakaaru di maître El Hadj wàllum yoon ba léegi Seydina Fall Bougazelli moom ni ah, dañ ko teg loxo ah, moom mi tekki ndombol tànkam ci assemblée nationale di ko toppee wàllum njuuj rawatina foo billet trafic ba ah, fële ca banlieue ba mu soqeekoo géejawaay askan wi ñenn nag jóg nañu di ñaan yoon mu def liggéeyam ci wàllu wowule waaye am na tam yeneen kàddu yu jib foofule ñu ne nañu bañ a boole yëfu politique ak yëfu yoon ñu dem foofu fekk ji fa Salif Sow ak Malick Diop doxum ñaxtu lañu amal ci mbedd Kër Masaar yi lu ñuy nakarlu mooy toj-toj yu ñuy dégg ci réew mi guddi yi nee ñu bëggatuñu dégg ay kilifa si ñu naan dañuy weexal xaalis wala ñi nga xamante ni mooy drogue ci sunu dëkk ñuy tudd senegal di tudd loola. du dégg du leneen dañoo gis lu nga xam ni il faut ñu duut ci baaraam fi mu nekk nii d'ailleurs député bi ñuy wax ku naan dafa toogal askan wi justice bés bu suivre on l'appelle à ça. bés bu suivrul nag dinañu am beneen taxawaay su dee justice bi nanguwul def liggéeyam si dossier bii. ñuy alerter nag di alerter alerter bi ñuy def mooy lan déclaré na fi ne dafa feebar ne dafa def hypoglycémie feebar moo tax ñu bàyyi ko mu ñibbi këram bi ñu ko bàyyi mu ñibbi këram am na fi temps voyager am na li ñuy préparé li ñuy préparé ëllëg nag mooy lan bàyyi nañ ko parce que dafa feebar évacué ko nañ ko parce que dafa feebar mais ñi ngi leen di xaar de pied ferme xam ne mbirum phobie yooyu suñu lay sénégalais. mbir mu mujj bu nekk yëngal dëkk bi ci Sénégal. ki mu dugal mooy kenn koo xamante ni ci nguur gi la faree mu muy Seydina Fall bu Gazali wala boog ci parti bi nga xamante ni moo nekkee ci nguur gi moom sax mujj na démissionné ci poste li nga xamante ni mooy député am bu Gazali mu ngi mandat dépôt doyen du juge moom moo ko ko def. association de malfaiteurs maanaam ànd ak ay nit di def loo xamante ni yi la ak it jéem a weexal xaalis boo xamante ni dafa ñuul ak it di jéem a ger gendarme yi yooya bokk na ci li nga xamante ni lañ ko toppee moom mi fi nekkoon député waaye ñi nga xamante ni ñoom la bokkal parti ñu ngay leeral nee ñu bu ñu jaawalee yàlla ak yaal yi mais affaire privée nag mënuñu ko jël dugal ko ci li nga xamante ne mooy parti politique wala ci état wala boog ñi nga xamante ne dañ koy def defuñu ko lu dul pour jéem a distraire li nga xamante ne mooy la population rawatina fii ci nga xamante ne mooy Kër Massar. bi élèves yi tolloon ci tolof tolof gisuñu Pastef wàcc sur le terrain jàppale élèves yi inondation yi ñëpp gisoon nañ ko fi président de la république moyens yi nga xamante ne déployé na ko. ci loolu lañ doon gën a xaaree li nga xamante ne mooy les acteurs politiques mais loolu yëpp tey gisuñu si waa Pastef donc yaakaar naa ne kooku bu ñu ñëwee pour euh, nu mu am li nga xamante ne mooy résurrection politique laa ko mën a tuddee dañuy nax seen bopp. mu mel ne mbirum naa Fall bu Gazali muy waa nguur gi wala ñi nga xamante ni ñooy kujje gi di politique kat yi ku nekk mu ngi koy jël di ko waxee. ca nam ko gënalee. Salif Sow ci wàllu yoon ba léegi yenn saa yi dañuy nemmeeku ni dafa am ay dogal yu ñuy jël rawatina bu ñu àttee nit ba noppi waaye kenn du ko doxal misaal gi euh, mel na wàllum alamaan lu ci ëpp duñ ko fay kii di directeur des affaires criminelles et des grâces nee am na benn jàngat buy wone ni képp ku ñu yóbbu ci yoon ba teg la daan ci wàllum koppar rawatina amel nga état bu Sénégal fukki milliards buñ koy xayma ca diwaanu Ndar géej am na benn système bu ñu fay doxal te mel na ni weer bu ca nekk ci wàllum alamaan képp dinañ am daanaka benn million Mandiaye Mandiaye Niang moom mooy directeur des affaires criminelles et des grâces ñu déglu ko ci micro Ousseynou Diop ak Ahmadou Bamba Samb euh, ba ñu am projet boo xam ne bi juróom-ñetti weer yi yëpp ñu ngi ci ñuy ñëw di tegaat mbir mi ci yoon mais liñ ci gis moom mooy ne ci juróom-ñetti weer yooyu ci service boo xam ne bi alamaan yi li mu daan bëri bari kenn daaw ko fay léegi projet bi tax na ba nga xam ne fi bi mu commencé mars ak léegi daanaka lu mat juróom-ñetti millions yoo xam ne yi ci xaalis récupéré nañ ko ci ay alamaan te loolu nag boo ko xoolee gis nañ ni ñun euh, euh, analyse évaluation bi ñu defoon ci Sénégal képp gis nañ ne alamaan yi boo ko xaymaa lu mu tuuti xayma bu tuuti bi mooy fukki milliards. donc projet bi nga xam ne projet bii ñuy am ndar projet bu am solo la parce que ak résultat yi ñu jot a wan dina mën a tax ñoom ñeneen yeneen tribunal yi jàngee ci. di seet ñoom nan la ñu mën a def pour jëli alamaan yi te du alamaan rek dafa am ñoo xam ne ñi war nañ leen mën a teg ay daan ñu toog seen kër ba ba ñu firndeel daan yi ñu door leen a jëli loolu aussi yëpp projet bi jàng nañ ci loo xam ne lii dina mën naa soppi daal mën naa wax ne mën naa soppi ni ñuy doxalee justice ci réew mi. maison d'arrêt et de correction muy ñi caabi féete ginnaaw fa ñu nekk ca diwaanu Bambey ñoom ay jafe-jafe la ñu am jamono ji ndox mu bon moom mooy bale ca foos yi wutali ji ña dëkk ca pegg boobu boobule lu ca mel ni euh, centre de santé ba ak euh, école euh, élément école élémentaire bi nekk foofu foofule ñoom la yëf yi gën a sonal ba tax na ñoom dañoo bëgg daal ñu indi ci ay saafara ci ni mu gën a gaawee reportage ca Bambey Babacar diggante centre de santé bi ak école élémentaire Cheikh Awa Balla Mbacké boulangerie bi ndox yi jóge ci foosu prison bu Bambey bi mu ngi continuer di wal ci mbedd mi situation bi nag juróomi at a ngi ni mu jaaxal ñi nga xam ne ñooy askan bi yeewoo ci centre ville bi. jékkut ci gis-gis jékkut ci nekkin rafetul aussi ci gis-gis euh, bi ñuy tabax euh, prison bi booba Bambey dëkk bu ndaw la woon ña ko tabax jamono dañ ko doon tabax waroon na mën a nekk fii tey nag ko xam nañu dëkk bi màgg nit ñi macha allah yokk nañu donc lu mel nii dañ ko war a sempi dem yóbbu ko feneen tabax ko lan la kilifa yi xaar pour indi saafara ci mbir mi askan wi ñu ngi ko. axe principal dëkk bi prison dispensaire mi ngi nii fii la fajoo hmm? marché mi ngi nii à 100 lii boulangerie la woon c'est grave ay nit ñoo fi dëkk ay nit ñoo fi romb di dem dikk jël ay malade ci loo xam ni c'est ay eaux usées ay eaux usées nawet bi mooy gën a grave nawet dañ koy ubbi mu jaar ci biir nit ñi di jaar ak seen i tànk xale di ci jaar mais dafa ñaaw dafa rafetul vraiment ñu ngi ñaan autorité ñu ñu parce que suñu ko waroon bëggoon defar defar nañ ko bu yàgg ah. ça fait du nit mënu ko régler il faut population bi jóg ñu régler woote nañ wax nañ lu nekk def nañ ko wante ba léegi ndox mi mu ngi continuer wal ci mbedd yi nga xam ne ñoo jëm ca marché centrale bi boulangerie bi sax dafa mujj obligé benn partie bâtiment bi ci euh, wàllu woowule sax secrétaire exécutif euh, comité développement sanitaire àdduna ci euh, li muy ñaan état bu Sénégal mooy bu ñu mënul toxo toxal kaso boobu la ñu jël yenn ci nit ña fa nekk ñu yóbbu leen Thiès wala Diourbel fileeg ñuy lijjanti mbir moomule Abdou Karim Ba lay wuyoo ci micro Babacar Diouf. diggante centre de santé bi ak école élémentaire Cheikh Awa Balla Mbacké boulangerie bi ndox yi jógee ci foosu prison bu Bambey bi mu ngi continuer di wal ci mbedd situation bi nag juróomi at a ngi ni mu jaaxal ñi nga xam ne ñooy askan bi yeewoo ci centre ville bi. képp ku gis-gis. di jéggalu mbokk yi ci njuumte boobule dañuy wax ci beneen ponk rek ci xibaar yi ñu ngi ko doon junj sànq muy juróom benn nappkat ya nekk caaroy sur mer réer seen mbokk daanaka semaine ak lu topp ngi nii ba léegi seen i mbokk tekkaaralu euh, kilifa réew mi ñoom jaaxal na leen ndax dañuy ñaan ñu euh, génne ay matukaay lu ci mel ni ay hélicoptère wala sax ay bateau dem ji seen mbokk yooyu le démb lañ doon def euh, toogaanu ñaxtu ca caaroy sur mer dañ ciy déglu Saliou Guèye moom moo yore kàddu nappkat yooyu le ay euh, kàddoom kon Salif Sow ak Asmalik Diop ñoo ko daataan. léegi ñun lu ñu am def nañ ko ci suñu doole yëpp ak suñu temps suñu njaboot yëpp ñoo ngi taxaw jaaxle te mool gi dafa am loo xamante ni coono la boo xamante ni mu ngi dal depuis bi nga xamante ni samedi ba léegi ak tey mu juróom-ñetti fan ñu bëggoon état. jàppale ñu ci seet bi nga xamante ne ñun moom la ñuy seet ndax seet bi métti na si ñun lool ndax ba fii mu nekk nii gaal a ngi si géej di ko dragué te gaal googu am na am na ñeenti fan si tey te mu ngi seet booba léegi mu ngi seet territoire bi yëpp ba nga ba nga dem Gambie gaal gi mu ngi foofu zone boobu mu ngi mu ngi xool ndax ñun suñu moyens yi am yëpp joxe nañ ko ci président de la république ministre ministre de l'intérieur ak sunu ministre tutelle Aliou Ndoye ñun ñoom ñëpp ak état bi yëpp rek ñoo ngi leen di ñaan xam ne caare yi état moo ko moom ñoo ngi ci ginnaaw état duñu xuloog état duñu def dara lu naxari état waaye nag nit bu jaaxlee jaxle na ñoo bëgg na suñu jaxle gii état yi ñëw jàppale ñu si ba lii nga xamante ni moo tax ñu jaaxle yàlla defal ñu si sutura mooy xale yi ñu indi leen si jàmm fekk leen ak jàmm matériel yi ñëw si jàmm. di fàttali ni jëwriñ bi ñu dénk wàllum napp gi di Aliou Ndoye ci RFM rajo Futur Média nee na bu Sénégal jël na ngir ñu mën a seet nappkat yooyu lee ñeneen ñu am lu leen metti démb ci guddi lañ ko wane muy ñu dëkkee fële ca Hann village te terre bi gàllankoor leen bu baax a baax ngir ñëw wala génn ci diwaan boobu le nekk na lu jafe-jafe ndax yoon yu bëri dañ ko tëj ba tax na jamono ji nañu leen defaral ay passerelle ñu ne ñuy mën di dem ak dikk ci ni mu gën a baaxee ñu ngi génne seen ngi wane seenub mer kon démb ci guddi te nee nañ ba moy lu euh, it tey ñu defaat ko amina Mbaare Sow askanu an village yeewoo ak mer ñoom nag dañoo fekk ñu bloqué benn axe bi nga xam ni dañ leen ko defaloon foofu ngir ñu mën a jéggi raay bi ginnaaw bi ñu fa amalee liggéey bu jëm ci wàllu train express régional. parce que boobu ba léegi ñu ngi muñ actuellement nii école la ñu dendal xale yi ñëw di jàngi ak malgré que ak ni mu jafe jafe yi ñu am pour ci wàllu sécurité rawatina nag tey suñu mag yi nga xam ne suñu kilifa yi nga xam ne a di dox seen soxla mënatuñu dox seen soxla actuellement ni séparé nañu quartier bi nekk ndaw yi wane seen mer daal taal ay li ñuy ñaan mooy groupe Sénégal daal leen gestu jàppale leen ci yoon yu ñu mën a jaar fii ñuy livrer travaux yi mooy li nga xam ne mooy passerelle bi li nga xam ne moo war am fii mu am parce que mënuñu defar pont defar fii li ñu defar teer war fi jaar ak li nga xam ne mooy wàllu courant tey jii nii mënuñu am fu ñuy jaar te suñu mag yi fii jaar pour war a dem ci géej ga a dem ci jullikaay ba tey jii nii loolu mënta nekk waa entroy fii la jaar di fa di dispensaire mënta nekk waa brigade bee ngi fii jege ñu bu ñu amee suñu soxla mënuñu ko dox donc loolu dañoo bëgg ñu trouver ñu ay passerelle euh, la situation bi nga xam ne moo fi nekk nag surtout muy wàllu sécurité loole lépp nag nee nañu ay passerelle la soxla ndaxam sax tàmbali nañu tabax passerelle yooyu le ñu bëgg ñu livrer leen ko nu mu gën a gaawee ndaxte jàpp nañ ni yoon woowule sonn nañ ci seet doom yi dañ fay jaar di dem école mag yi tamit foofee lañu am buñ ko bloqué daa mel ni gox yi nekkee foofu. coow li jeexagul ca biir euh, SUTSAS euh, di syndicat unique euh, travailleur des des travailleurs de l'action sociale ñoom nag dañoo bañ kanda ne kii di Mballo caam Thiam du leen a jiite ñu bëri bàyyeekoo ci ay diwaan yu bëri ci réew mi daje nañu fële ci hôpital amadu saxiir Ndiéguène bu cees ngir wax euh, li leen metti nee nañu it dinañ amal benn assemblée générale euh, jooyanti euh, fexe ba kii di Mballo caam ñu teggi ko fa jàpp nañu ni dafa war a dem àll tere te abal leen ñu déglu ci Cheikh Anta Diop ak Seyla Thier ci diwaanu Thiès. tab gi ñu tabb Mbathio Thiam ci boppu SUTSAS yëkkati na fitna jamono yi ñu gis ne buñ moytul xaajaloo dina am ci SUTSAS. ni mu defee nii yëpp dara jaaro ci yoon. donc on apporte la fronde parce que on reste dedans et on mène la guerre. agent de santé yi de bokk ci SUTSAS jóge woon nañ fu nekk ci région yi amaloon ab jataay fii ci Thiès ci hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène ñoom li ñu wax tey jii moom mooy kii di Mballo Dia Thiam du leen jiite. bi ñu génnee ci congrès bi ñu génn di jébaane que ne kii tey nga xam ne mooy déclaré wu ne moom mooy jiite travailleur SUTSAS yi travailleurs yi ànduñu si loolu parce que mënatu ko doon 2015 ba léegi la nekk retraite bi Mballo Dia Thiam binduwul ci benn liste nekkul délégué au congrès gis nañu ñun ñëpp congrès bi nu mu demee. ñi bokk ci syndicat bii di SUTSAS nee nañ jamono yi nag xeex bi yëpp moom mooy kii di Mballo Dia Thiam dëddu bàyyi syndicat bi dem yoonam. xam ne nag kenn falu ko. moom la ñu bëgg mu dem yoonam bañ a indi benn coow ci sunu biir SUTSAS te ci loolu la ñuy nekk di liggéey nii fu mu nekk nii organisation bi am na ay responsable am na bu ñu ñibbee ci base yi ñi nga xam ñooy responsable yi ku nekk di nga gën a liggéey ak militants yi moom fu mu nekk nii depuis ca njalbeen dafa retraité kenn gënul am euh, gëdda base bi te base bi tey ñoom ñoo ko ne déet Fatick a ngi fii Thiès a ngi fii Dakar a ngi fii en grande partie Louga Matam a ngi fii Kaolack. nee nañ dinañ wër ci région yëpp nekk ci réew mi ngir daje ak seeni militant gën leen a ñaax. ca Kaolack moom li xibaar bu neex la ci ñi àll tere te doon liggéeyee foofee ca hôpital ba El Hadji Ibrahima Niass dinañ mën di faju foofu foofule giiru euh, giirub euh, dund te duñu génne benn dërëm direction bi moom moo jël dogal jox leen ay carte foofu euh, foofule ñu ne nag ab yoon la rek ngir sargal leen ginnaaw ay at yu bëree bëri ñu nekk foofu foofule di toppatoo malade yi Ibrahima Diame Faly Gueye ginnaaw liggéey bu am solo bi ñu def ci biir l'hôpital bi retraité yi centre hospitalier régional bu Kaolack nag direction bi daal di jël dogal pour sargal leen. suñu ñaar fukki retraité ak juróom yoo xam ni ci hôpital bi lañ doon liggéeyee jeexal fi seen doole jeexal fi seen kàttan ñoom la ñu doon sagal tey di leen jox ay cadeau di leen wax ni hôpital bi fàttewu leen te hôpital Cheikh Ibrahima Niass dafa def loo xam ni amul ci yeneen structure yi sax. direction hôpital bi nag narul yem rek ci sargal. retraité yi de waaye fas yéene nañ kon wutal leen ay carte d'accès yu nga xamante ni daañu mën a faju ci biir hôpital bi te duñu fay dara. mais jël naa décision que ku retraité da ngay am une carte d'accès permanente. c' est pas une carte qu'on va renouveler chaque année mais saa yoo soxla hôpital dangay dugg parce que mënoo def ci hôpital fanweeri at ñaar fukki at nga ñëw ñu ne la doo dugg donc loolu moom bu dee am na itam bis ni ki tey dakk na ndax loolu dina jeex. mais loolu directrice wax dëgg ñu ngi koy nuyu ñu koy ciy sargal aussi di ko ci remercier ci ñi mu ko siy defal leneen li moom mooy gis nga ku à la traité euh, dañ koy topp. di ko toppatoo euh, muy état bi muy euh, directeur hôpital muy service social parce que ñii retraité war nañ di xool ci lan lañ nekk. hôpital bi nag fas yéenewul ko définitivement ak ñii di retraité yi ndax bëgg nañu xool daal naka la ñuy def ngir di mën a utiliser seen expérience suñ ko soxla. nañu wax leen campagne njaayum gerte bi léegi mu door ca diwaanu Louga foofu nag opérateur privé stockeur yi ñu ne ñoom ñu ngi rafetlu matukaay yi Sonacos jël ngir campagne boobu lay jaar yoon waaye am na benn mbir bu leen tiital muy yeneen marché yi ndax ñii di béykat yi dañuy dem ci ay luuma di fa jaay seen gerte ndax dañoo gis ni ñeent fukk dërëm ñeent fukk ak ñaari dërëm yi ñu fixé dafa tuuti mën nañ cee am juróom benn fukki dërëm ak lu ko ëpp ba tax na fukki junni tonnes yi ñu leen laaj ñoom OPS yooyu am nañu tiitaange ci euh, mën koo def euh, dañuy dem ci Louga fekk ji fa Thierno Fall. gerte gi moom fixé nañ prix bi deux cent dix francs waaye man moor damay am jaaxle trop ak tiitaange parce que deux cent dix francs la la ñu fixé comme prix gerte soo demee marché bi trois cent francs la donc gerte gu rafet gu baax gi yëpp fii ñuy boo demee marché Njaañ trois cent francs la fay jar ñu ngi fixé deux cent dix loolu tiitaange la nan la ñuy def ba am gerte gu baax gi nga xam ne usine bi soxla na ko wax dëgg yàlla donc loolu moom nekk na rëq-rëq opérateur yi day dañu xaw a xaw a ci tuuti pour que nañuy amee gerte indi ko ci usine bi loolu la ñuy xalaat parce que loolu mooy jafe-jafe yi. kon war nañoo protéger opérateur yi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu gerte gi ba gerte gi des fi war a des ba capital semence bañ a génn ndax loo mën def ci àdduna te amatoo jiwu rek am na rëq-rëq kon nag war nañu fexe. ba gerte gi bañ a dem ba jiwu mën a am te bu ñu leen protéger wul nii gerte gi mel ci marché bi ñu koy jënd marché parallèle di jënd 300 francs le kilo muy gerte gu baax gi gën a ñor loolu bu ñu ko dee jiwu du am wala bu ñu dee ba ci kanam dana am ay jafe-jafe. ñoo ko gisandoo kon muy benn ci OPS opérateur privé stockeur yi nekk ca Louga ak seen i tiitaange ci campagne njaayuma gerte bi ñu ma la xibaaru politique Abdoulaye Wade dalal na këram ki di maître Madické nga ñu waat ay weer daanaka jafe-jafe yi juddu ci seen digg ñoom ñaar li ko waraloon nag mooy élection présidentielle bi ñu génn 24 février ak candidature alternative bu parti démocratique sénégalais coow lépp fa la jóge ci ab juboo bu am Sarr ak Abdoulaye Wade daanaka neexoowatuñu Alxasan Ba lañ ci àndal ci loolu lépp. Abdoulaye Wade tey loxo Madické Niang mu mel ni ñaari xarit yi. juboo dox na seen diggante ginnaaw nag bu ñu toogee ay weer waxuñu ñoom ñaar seen réeroo mu ngi bàyyeekoo bi ñuy waaj jubal si élection présidentielle bu 24 février bi ñu génn Madické Niang mel ni gisoon na dogal bi nar a bàyyeekoo ca conseil constitutionnel jëm ca candidature Karim Wade ci loolu moom responsable libéral bi daal di teg débat candidature alternative bu parti démocratique sénégalais mu nekk mbir mi nga xamante ni neexu ko moom moom Pape di soppi gis ci war bàyyeekoo ci ma Madické Niang moom mi le sax Madické Niang ci loolu dafa mësa a boppam jàpp ni musut war benn yoon jabootu Abdoulaye Wade ginnaaw présidentiel bi maître Abdoulaye Wade daal di foqati post président groupe parlementaire bu liberté ak démocratie te assemblée nationale bu moom ma Madické Niang yoroon naka noonu Madické Niang si boppam mujjantal gi daal di saisir président Moustapha Niass ngir bëgg a tekki ndombal tànkam ci postam député ku nekk si ñoom daal di tourner ab page istoire bi dox seen diggante faaw nag ñu toogaat ay weer gisaat ñaar ñi nga xam ne ay xarit lañu ñu toogaat juboo dox seen diggante mu nekk mbir mi bàyyeekoo ci Serigne Mountakha Bachir Mbacké moom xalif général de Mourides daal dina réussir beneen ku ginnaaw bi nga xam ne amoon na ca Masalikul Jinaan mu dox diggante moom Macky Sall ak maître Abdoulaye wadd moom Abdoulaye wadd nekk murit bi nga xam ne daanaka taalibeem naa table amu ci mu daal di jàppee sax bëgg-bëgg xalif bi ab ndigal naka noonu mu daal di weccante kàddu ci téléphone ak kii di Madické Niang ndaje bi dafa mel ni kon suite la rek ginnaaw acte boobu juboo bi di am ci jamono itam bi nga xam ne moom ex coordonnateur bu parti démocratique sénégalais Omar Sarr ak njiitu réew ba woon maître Abdoulaye Wade di secrétaire général national bu libéraux yi duñu wax seen biir am note circulaire ñëw na dëggal ko not circulaire boobu nga xam ne sax ñoom ñi bokk ci suxali soppi mu di structure bi ñu taxawal nanguwuñu dogal bi ci bàyyi ko mooy dàq bi ñu jàpp ne dàq na ko boppam ci parti bi moom Omar Sarr ci loolu sax ñu jàpp ni not circulaire boobu du moom Abdoulaye Wade moo ko amal ana ban nag taxawaay la parti démocratique nar a am naka itam nañu mën a séentu avenir u parti bi Karim Wade ñu bëri jàpp ni lépp lu am ci parti bi moo ko waral jërëjëf Alhassane Ba fukk ak juróom-ñaareelu édition euh, FILDAK mu di foire bi ñu jagleel wàllum livre ak lépp lu ñuy jàngale sukkandikoo ko ci ay téere mi ngi am fii ci Ndakaaru mu di ab euh, bërëb boo xamante ni dañ fay weccoonte xalaat ci wàllum euh, livre ak naka la ñuy def ba gën koo suqali waaye dañoo samp ay laaj muy jamono ji xarala yu bees yeeg ni ñu mënee dem xaj na ba gàllankoor njaayum livre boobule Cheikh Diop ak Jaafara baa def nañ ci ab jàngat. ay téere yu bari yu wuute yoo xamante nii daal dañ koy exposé file bu ci nekk ak li muy wax ak itam li nga xam ne moom lañ jukki ci biir téere physique yi lee dem bay nax saay li waral lu ni mel technologie de l'information yi waaye mu mel ni yile téere moom lañ gën a jaay fii ci mim réew. lu ma gis ak lu ma seetlu ci ci fu ñuy yëngu maanaam ci wàll téere euh, téere gi nuñ ko xamee woon téere bu nekk ci këyit. lu luñ ko xam defe naa moo gën a moo gën a jar moom moo gën a fës que téere yoo xamante ne defar nañ leen ci internet ak ci portable lay mun a lay mun a génnee ci dëkk yu mel ni suñu bos dafa mel nii euh, téere këyit mooy gën a mooy gën a daw ndaxte déjà pour téere gi am na benn njëg goo xamante ne am na ko. jamono yi tembe jafe na ci doomu aadama yi ñu dal di sëgg ci li nga xam ne rek moom moo di téere yi ci loolee nag li nga xam ne moom moo di ouvrage électronique yi lii. am na solo ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di doomu aadama yi. bi lu ñuy wax téere électronique bi fa la amee solo ndaxte nit ki mun na yore portable am nekk ci biir bus ci biir tata wala fenn ci taxi euh, ci biir ci diggante googu di koy jëlee këram ak ci bërëbu liggéeyukaayam dina fa mën liir te du soxla yore téere loo xamante ne dina ko dina ko déranger. wala dina feesal ay loxoom ndaxte ci téléphone lay nekk wala si tablette am su ko téyee ci diir boobu mun na léegi mun na am loolu ci. ci ci farnde boobu ci firnde boobu mun nañ ci wax ni livre euh, téere électronique bi am na solo ci wàll googu. ndaw li li nekk ci classe bu première moom mi le nag li nga xam ne moom moo di document physique yi ak doon lu ko gënal. en fait sooy lire livre électronique t'as pas ce sentiment t'as pas lu mu lu mu war a àndal yëpp lu livre war a àndal parce que en réalité livre en tant que tel nga jël livre bi di ko lire bonheur boobu mu lay procurer ngay feuilleter da ngay vivre action bi daal comme si livre bi yow yaa yow yow la ñuy waxal. nafar doon ab yëg-yëg doon itam loo xamante ni dina mën a tax doomi aadama bi daal di fàtte yenn ci ay jafe-jafe yoo xamante ni rek mi ngi koy jànkonteel ci àdduna bi ouvrage moo xam physique wala boog électronique dina mën a tax ki koy liir daal di dund leneen loo xamante ni rek wute naak li muy dund. ñu wéy ci xibaaru biti réew dem ba Guinée Bissau ñoom xam ngeen ni démb demoon dañ ci bañ gàcce yi ngir ah, daal di tànn njiitu réew bu bees kenn ci candidat yi nag bu ah, madame ah, G15 di Umaro Sissoko Embaló nee na amul benn ci candidat yi bu mën a taxaw ne jël na raw gàddu gi ci pàcc bu njëkk bi deuxième tour moom second tour kon mu ne faw mu am moom candidat boobule waxaat na bu baax a baax ci relation yi mu am ak njiitu réew bu Sénégal ji président Macky Sall dañ envoyé spéciaux foofulee di euh, Barka Ba ak Xaali Ndiaye. depuis 94 depuis le 94. li ko dolee atum 1994 am na ay élections yoo xam ne ñu ngi koy def boobu ak léegi. waaye boo xoolee ci Bissau Guinée yi amul kenn koo xam ne ni booba léegi am na charisme bu président Nino Vieira waaye ñu ngi siit ne Euh, tey jii euh, bu weesoo moom président Amir Cabral moom it amoon na taxawaay googu waaye boo xoolee euh, sa su gañee moom mu sax dafa fekk mu jàll ci ñaareelu tour bi bu noppee moom it ñu mën a wax keneen muy Kumba Yàlla mala Makay gannaaw ñoo ñëpp nag tey jii mun naa ni man maay candidat nga xam it moo ci gën a euh, charismatique xam nga civil yi ñoom euh, dañ naan mus nañu waaye militaires yi ñoom nag ba tey doon na ñoo xam ne dañuy jëfandikoo seen xel te sax ànd ak dal euh, li ma mën a wax it mooy du ma nangu mukk ma gagné tey élection yi mu am kenn ci candidat yi koo xam ne nii xelam tey na bu boobaa la may wax rek kon ñu amalaat compte voix yi ndax bëgg naa doon président boo xam ne nii dinaa yëkkati sama loxo ñëpp ànd ak man du am benn. ci loolu Sénégal ba tey goo xoolee doon na réew goo xam ne nii euh, sama xol laa ko def ndax samay tante ak euh, samay na ñoo fa nekk mu doon réew goo xam ne nii dama ko téye lool te sax boo xoolee it lépp loo xam ne laaj la bu ngeen ma war a mën a laaj mun ngeen ko laaj président Macky Sall ndax moom kat euh, sama mag la ça c'est mon frère. ginnaaw biti réew dañuy wéy ci euh, tàggat yaram ak euh, nawetaan yi jamono ji nag ci Dakar Plateau euh, dañ ko ajandigum fii lépp ab diir sous préfet ba moom moo jël dogal bu ni mel ginnaaw fitna yi ñu fa nemmeeku woon samedi bële weesu ci demi finale yi diggante pencum Tilleen ak jàppo ak pencum Tilleen ak ASC Mboti Pom ay supporters ñoom ñoo dugg ca centre de santé Elisabeth Diouf daal di koy saax saaxee am na it ay oto yu ñu yàq Jibi Diallo nee am na enquête buñ sous-préfet bu Dakar euh, Plateau euh, Pape Fare Gning ak Mouhamed Dieng ñoom ñoo taataan ay kàddoom. jël arrêté pour suspendre nawetaan yi ba beneen yoon. bu ñu demee bay vandaliser centre de santé toj ay auto médecin chirurgien toj ay auto jàmbur yi gaari seen buntu kër di toj ay boutique jàmbur ay këru jàmbur ci ay nawetaan boo xamante ne bi kenn footballé ko fii mais fële nekkul sax ci presque amitié ak i banlieue ñuy ñëw di xeex fii avant le match. xeex pendant le match xeex après le match bay def dégâts yu mel nii je pense nekkatuñu ci domaine sport leneen la. en ce qui nous concerne li ma mën a wax mooy ñi nga xamante ni def nañ ko mënu bu ñu tëdd nelaw ñun dinañ jël suñu responsabilité ça c'est clair. parce que mënuñu def dégâts yu mel nii ba pare dem tëdd nem naan attaaya di def leneen ça il faut soit très clair et force restera à la loi. zone numéro un. participé wuñ zone numéro moo participé ci ci lii la soldé wu donc ñun jël nañ seen responsabilité donc mën nañu wax kat ci biir plateau moom di ko jëlee Gorée ba euh, Fada bi ci moom nawetaan pare na fi. mu doon Djibi jàlloo di sous-préfet bu Dakar Plateau léegi léegi dañuy dalal Mamadou Mouhamed Ndiaye ci li yëglekaay yi xëyee tey. ciir ngeen jëf daaray njanja ca Louga la fa xew dara wutale woo ko jëfi bàyyi ma ubbi l'observateur benn sëriñu daara bu ñu naan Cheikhouna Gueye moo fa jàpp juróomi ndongam yu toll ci juróom-ñetteet jàpp fukki at ceene leen Fallou Loum Fallou Ndiaye Baara Ndiaye maam Cheikh Ñang ak rakkam ju ñu naan maam Xaadim Ñang ñoom ñëpp la ñu fekk sëriñu daara ba jénk leen li ko feeñal l'observateur nañu moo di lenn ci askan wa dëkkee ca Gét Axdo ñoo gis benn xale bu ñu jéng di dox di direeku ak di watatu ndax jéng yu diis mu ñëw ñaan leen ndox mu mu naan nit ñi gis ko seen àdduna tukki ñu jël seeni téléphone di ko photo ak di ko filmer dugal ko ci réseaux sociaux yi jëf ji wër àdduna ci la doxee ba ne toq ci nopp procureur bu tribunal grande instance bu Louga moom it mu ne waa gendarmerie bu Koki nañu ko enquêtal yëf yi ba xam mbir nan la demee ci la commandant Diallo ak i gaayam jëkk di ko topp ba yegg ca daara juñ naan daara njañ ba ñu demee fekkaat nañu fa yeneen xale yu ñu taxawal jéng leen takk leen ci ak weñ gu nekkoon ci seen wet bi ko gendarme yi gisee daara ba Cheikhouna Gueye di soudeur bi doon defar jéngi Pape Diop ñoom ñëpp la sandarma ya buub yóbboon ndonga ya ñu jéngoon am na ci ñoom ñoo xam ne seeni waajur teg nañu leen loxo ci ñoom ñaari jigéen ña ca ñoo nga ñu tëye ci sandarmari bu kokki tey jii ci altine ji leen war a defeere ca parquet bu tribunal les éco fu nekk pression fay jógee jëm ci sandarma yeeg procureur bi ngir bëgg ñu libérer sëriñu daara bi vox populi nañu moom sëriñu daara nañu ci ak moom moom sëriñu daara bi ak soudeur bi doon defar mënoot yi ak ñeent ci way juri ndongo yi ñu leen a ceene woon ak li ñu leen ceene woon journal La Tribune xëy na dajale lépp foto ko tegal ñu ko ci xëtamu njëkk boole ceekit di ñu nittali ni ñu jàppee sëriñu daara bi xamal ñu it sëriñu daara ba jàpp nañu ko waaye bu ñu moytuwul du yàgg ci loxo yoon ndax am na ñuy def pression bu rëy bëgg ñu libéré ko jamono ji nag ma nga ñu téye ca gendarmerie bu kokki ñu bàyyee ko kokki dem ca kayaar ak coow la fam journal l'observateur mi ngi ñuy xamal ne dafa am benn usine bu ñu naan Barna SA société espagnole la bu bëgg a sampe fii ci réew mi ca kayaar la nekk mu di projet boobu juróom-ñaari milliards la ñu ko taxawalee farine ak huile de poisson lay defar ba ñu yëgee ne am na ñu dëkkee kayaar ñu àndul ci boobile projet ca la maire bu kayaar Alioune Ndoye jukk ànd ak askano kayaar ñu amal ab marche keroog samedi ngir doon wane ca marche ba ànd gu ñu ànd ci projet bu usine Barna Sénégal askanu kayaar wi ak seenub maire ne li tax ñu soxla projet bu nu mel moo di bu sottee ñetti téeméeri doomi kayaar ak juróom fukk danañ fa mën a liggéeyee dina tax it goney dëkk bi am ci lu ñu jàpp ba seen xel dootu nekkati ci Barcelone wala Barsàq mu di immigration clandestine boole ceekit dina tax ñu tàggoog jën ñi nappute duñ leen soxla di ko tuuri ci géej gi ne bu boobaa isin bi lépp lay jëndaat ci ñoom liggéeyaat ko dara dootu yàqoote li yàqu ba yegg ci yaxet moo di àndum Abdoulaye Wade ak Omar Sarr Omar Sarr ak compagnie yi tënku ci alliance suqali Sénégal le quotidien nee nañu ñu ngi corriger Abdoulaye Wade leetar bi góor gi génne di ca xamle ne Omar Sarr bokkatul ci biir parti démocratique Sénégal bàyyi na gaa ñi nee nañu leetar boobee amul benn solo te Abdoulaye Wade bindu ko ay nit a làqatu ci ginnaaw Abdoulaye Wade di ko signalé ak ñi xam ne Omar Sarr teg na ko ñoom ànd nañ ci ak moom dañu koy assumer les économies ñu ñoom waa suqali Sénégal leneen lu ñu ñaawlu ci seen ndaje ma moo di Abdoulaye Wade ko doxali nag ni mu baree yu woro mu di incohérence yu ci am benn moo di juboo nag Macky Sall juboo nag maître Madické Niang dem na seeti Pape ba noppi dàq Omar Sarr Modou Gaye aw turam wër na àdduna ubbi l'observateur benn doomu senegal la bu nekk Italie benn bés muy dox ba for benn montre Rolex buy jar 19 millions wër boromam ba gis ko delloo ko montaram Modou Gaye ne waa l'observateur borom montre bi bi mu jotaatee montaram gëmewu ko woon 16 millions la yëkkati may ma ko. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye sant ko gërëm ko ak yéen ñaandoon ak télévision Futur Média 19h30 incha allah rédaction bi dina fi ñëw yaatalal leen yeneen xibaar di leen ñaanal ngeen yendoog jàmm.